waaw euh, dama xëy si tey xëy si ba ay vers dix heures UIC bi ñëw ànd ak kaaru police moom ñëwee na ma dañuy dañ lay génne man ko génne pour la mënuma si parce que jot naa ordonnance bi nga xam ne dafa jógee si juge bi ma ne ko ordonnance bu jógee si tam man kenn notifié wul ma nit ki boo koy génne dafa am ci loo koy génne mu ne ma non parce que jotoon nga notification ma ne ko notification ma ci doon turu dagg tàll ne ko que Dagatal ak sàmm kay bokkul am xam nga parce que li indi Dagatal bi monsieur Mabi Diop moo luyee fii Mabi Diop moo nekkoon chef de bureau urbanisme de Mbour mom mom, moom kër mais ci bir lolu dàgga coow dafa ma euh, Dag euh, comment Mabi Diop dafa ma signé contrat 2016 effectivement bam mu contrat direct et déterminé. Je suis signé le 7 deuxième mois 2016 signé contrat je suis signé avec Dagatal le mois de mars 2016 2017 contrat bi dama ko force bagasse bagage su Daggatal Je moon signé signé contrat koy location depuis 2016 fin 2019 je ne euh, ma bi signé na double contrat dèjà contrat yaa ngi ci même place bi ci même place bi ñaari contrat ci même place euh, li ma ci jaaxal mooy parce que man damay yaakaar ne ñun ay sénégalais lañ nekkuñ ay malien même malien bu ñëw fa investir alalam sax am na lu ñu ko a taxawee dama ubbi sama société di fay ay sénégalais ñuy liggéey démb rek état envoyé nañ ma benn notification mu war fay ne ma da nga war a fay soixante cinq soixante sept mille kon c'est parce que sunu Sanofi mu ngi nekk en règle kon lan moo tax man lii mën a ñëw dal ci entreprise bi te entreprise bi contrat mu ngi ko yor notifi parce que buñ buñ buñ ñëwoon nekkoon commandement bi turu Samba Gueye ak entreprise Sanofi lañ ko def motif bi lii ak lii la ni mën comprendre mais dem fekk société muy liggéey nga jël ay bagages am génne ko c'est parce que kat dañuy topp am na ko ñuy topp ku tollu daggatal gisuñu ko nekkoon na ci bureau bi kon yow da ngay génn dàggataal fii la nekkoon. dàggataal maa ko gëj a dégg téléphone le 22 octobre 2016 2019 jour bu ñu daj sama bureau. su boobu yéen a kos yéen a ñëw. Ah, jour boobu laa ko gëj dégg téléphone. kon entreprise bi ak sàmm gi amul dara lu ko lii ak dàggatal entreprise bi euh, ñu fiy yëngatu bari na na parce que lu li ñuy liggéey dafa bari ñu ngi liggéey ci foncier bi ñu ngi liggéey bâtiment bon déjà ñu nekk ci bâtiment rek mënoo leen compter parce que batiment bu jëlee chef de chantier yi bu la joxe cinq personnes main-d'œuvre yi nga xam ne ñu ngi fay liggéey moo dalay jox ay trente mais ñooñu ñëpp damay continuer dalal seen xel ku ci tëdd sa kër sax société bi ñu xañ ko local am dina la fay sa salaire sama jaay sama kër sana ko jaay parce que dañ am yaakaar ci man te yaakaar joju du ma ko yàq mukk lépp lu mo ci man dina ko def sama jaay sama bien personne naa ko def pour téye li nga xam moy groupe Sanofi parce que dañ nek sur contrat dèjà ñi nga gis ñepp ci entreprise bi lañ lañu ñu liggéey ñii bàyyi seen jabar ñi bàyyi sen jëkkeur ñepp ñew di liggéey bi Diop def li may def mooy délit ba Mabit Diop def parce que délit laa ko mun jàppee ah même site nga def ci double contrat yëguma ko li tax may yëg ko dafa am benn kilifa gu fi ñëw ne dafa am dossier mu joxoon dàggataal naa ko seeta si biir dossier dàggataal ma xool gis li dama tit ma ne non mais man damay nelaw wala lan kon bi Diop ak dàggataal def nañ contrat ci kaw sama kon maa bi attaqué naa ko ci ñaari contrat yi parce que dafa ñëw andi euh, commandement ma dikk taal ma dem ci huissier bi nga xam ne moo yor dossier bi ma ne ko mais met ma ne ko ma ne ko dossier bi ma ne ko même lieu bi ñaari contrat dafa gëm ne mu loo mënul nekk moom jaata ci boppam mu ne maa bi dafa fautif parce que même lieu mënoo fa def double contrat ñu convoqué ñu tribunal parce que ma dem tribunal dem ma ci turu Samba parce que Samba Gueye parce que amu fa dossier mais dàggataal moo moom lañ moom lañ notifié nekkul fi mais damay dem génn ñaari contrat yi wan ko juge bi jël dossier bi jox ko samay avocat parce que lii moo fi am comme la ko ñëpp gisee moom laa ko gisee mais damay continuer waat dalal xelu ñi nga xam ne ñu sama ginnaaw non damay attaqué contrat bi damay attaquer contrat bi parce que mabido Diop jël même les signes ñaari contrat même UC bam mu sank ni nii dafa ma police woo na la demo ma ko mais man kilifa ko tol man police dañ ma wuduma dem man mën na représenter ma représenter ci réew mi liggéeyal ay liggéeyaloo doomu jamm di len fay hein police woo ma daf ma soxla dewuma ban crime la def police di ma woo dem ma ko ken woowuñu mu lol jaxal loolu jaaxal na ma ne ko mais warula même police woon ma mais dañ may notifié dañ ma notifié na ma lii ak lii xew na li may def ma def ko ma xam lan lay def mais jotuma benn notification jotuma benn appel bi nga xamante ni concerné na mooy lii dama xëy notification bi sànq la ko fi bàyyi léegi la ko fi bàyyi diir 48 heures mais mu dafa ñëw 10 30 minutes police yi and 15 de car lañ indi mel ni koy dem guerre 38 heures te ma dagatal lañu guenné parce que euh, gis nga dagatal dagatal lañ bind binduñ sambagé fi dañ ko fi dañ ko ci chargé ba ñëw ba yegg si lañ bind sanu ci monsieur sàmbage ñu ñoo génne bagage police ci bopam mo guenné bagage police mo guenné bagage comme dañ leen di fay rek waaw police mo guenné bagage moo tax ma ne képp koo xamante ni sa dossier mu ngi biir Sanofi ngay partenaire u Sanofi na sa xel dal li ma waxoon ci bee passé bañ dajee bureau bi parce que combat bi day continuer parce que yombul yombul si day continuer liggéeyam ku mu war a liggéey dina liggéey fu mu war a dem dina fa dem kooku moom day déranger kooku kooku Sénégal ñi mbuur xam nañ ko parce que entreprise boo xam ne 2016 la judd am ay partenaire boo demee Turquie nga dem France nga dem États-Unis am dossier nga xamante ni mu ngi koy traité mais day déranger si day déranger fi ñu toll nii am na quatre contrats yoo xam ne maa ngi ko waroon a signé tey tey quatre contrats yoo xam ne maa ko waroon a signé mais ñi ma ko seqal confiance bu dox sama diggante ak ñoom bu ñu jëloon bàyyi bagage taal ko teg ko fii sax licence bi sax ñu taal ko Samba Gueye day dem. ba keroog justice taxaw na ma fii kat amu fii amatoo fi dara loo fiy def amatoo dara li nga xamante ni war nga ko topp maa bi jóg dama koy nangu xam ne yoon kat ñun ñëpp la fi nekkal man la may liggéey ci lañ leen di fay ma damay fay sama personnel mais ñay àtte la may fay 67000 yi ñu indi ma démb mais mooy fay salaire yi. enregistrement yi may jël di ko dugal impôt mooy fay taxe yi may fay mooy fay salaire kon am na lu nga xamante ni man yoonu senegal man war na ko liggéey boo amee ay daan yu war a teg si nañ ko teg Sanofi boo amee daan yu war a teg maa bi jóg nañ ko teg maa bi jóg procédure ba mu déparé mu nekk en cours dama tax dootuma fay tant que xaw ma dossier bi fan lay mujj. parce que dossier mënu nekk ci yoon ngay fay malgré que attaqué wuñ la ma dagg taal lañ attaqué mais yaa nekk ci site bi sa contrat muy nekk en cours parce que man xawma ma xaw ma comprendre ma